parce que dem naa ba jàpp ni li ma bëggoon liggéey biir Sénégal mënatuma ko am mais jóg nii rek te defe naa yéen ñi ñëpp loola leen fi bàyyi mais jóg nekk président ba sa mandat jeex nga ne maa ngi dem dudi loolu li muy wane rek mooy da ngaa deful jàmm ci dëkk ba xanaa en tout cas en tout cas président France président Amérique président Italie wala premier ministre Italie ak feneen ak feneen kenn mësul dégg ñu ne génn nañu réew soo demee Afrique Jerry Rawlings ay mbuusam la yoon di dem supermarché yi jënd dugg ci kaar yi dem ñibbi te kenn joxoñu ko parce que dafa yoroon réew mi ni mu ko yoree bu demam jotee mu dem ci demin bu rafet kon soo defee li nga war a def defe naa dund sa réew mooy dàq lépp ndax foo génn ñu xalal la ñu xalamal la waaye su dee da ngaa def safaan wa parce que li ñuy gëmloo nit ñi mooy non si le président reste au Sénégal day gêner président bi fi nekk loolu mooy ban façon wax. tey France France Jacques Chirac a ngi fa di dund François Hollande a nga fa di dund Sarkozy nga fa di dund est-ce que dañu gêné ki fa nekk président États-Unis ñaata président ñooy dund démb dégg naa George Bush père démb la gaañu George Bush fils mi ngi dund Barack Obama mi ngi dund Bill Clinton mi ngi dund est-ce que dañoo gêné ki fa nekk kon loolu waxu tappale la nit suñ la joxee am réew nit suñ la joxee am réew man gisuma lu la mën a tere yow jox nañ la réew jox la budget jox la diplomatie jox la administration jox la armée lépp ñu jox la ko jox la avion ne la bëgguñu sax ngay tardé sooy tukki soo génnee ñu ne nañu génne ay motard parce que bugguñu nga embouteillage nga naan dañ may su diw toogee du ma mën a liggéey loolu waxu tappale la kon liñ ñu nu jàpp mooy gisuma lan moo war a justifier un président su dee def nga li askan wi doon xaar ci yow war dangaa war a am fierté sax toogaat ci biir réew mi dëkkaat fi nga dëkkoon di ànd ak ñi nga doon àndal ci jàmm di dox say soxla ni ñëpp moo tax man toujours dama naan Sénégal il faut ñu réfléchir est-ce que ñun il nous faut un président de la République est-ce que suñu système bi waruñu xalaat dem même vers un système parlementaire encadré un régime parlementaire encadré parce que problème Sénégal yëpp mi ngi nekk ci institution présidentielle soo nee président rek image bu muy jox sénégalais yu bëri mooy benn genre buur benn genre surhomme boo xam ne mais président du dara président moom moo war a c'est lui qui est redevable de son pays et non le contraire mais fi dañu gëmloo ni président benn buur la boo xam ne ni dañ ko war a sukkal dañ ko war a raamal il faut qu'on casse cette image là et en ce moment on reviendra à un président à dimension d'homme euh, monsieur Traoré